position ci accord de pêche yi ngir leeral askanu Sénégal ne njariñu réew mi la waaye jafe woon na lool la yéen a kaay gi di la turbine daan nay dikk ci lu soxal wàllum émigration clandestine gi nee na bëri na ay ndaw yoo xam ne natt yi ñu tekk bu ñu ko teggee si la ñuy paas jël gaal gi dem bitim réew yéen gi nee na natt yooyee moo leen di sànk yéen gi di la quotidien wax na ci lu soxal ñi nga xam ne ñu nekk bitim réew ak dogu bi nga xam ne waa union européenne dogu nañ ko ngir andi leen ci réew mi yéen gi nee am na benn société de conseil bu nekk ci ministère intérieur bu France ñoom la ñu dénk mbir mi lu toll ci 39 milliards génne nañ ko ngir lal ay pexe ngir génne mbooleem africain yi nga xam ne ñoo nekk Europe te amuñu ay këyit yéenekaay gi nee na émigration clandestine ak deuil national bi nga xam ne moom la ñu doon amal ci réseaux sociaux yi loole nag ñi ko doon def am nañu ci ndam bu baax a baax yéenekaay gi nee na deuil national bi Aminata Touré ak juge Hamidou Dème bokkoon nañu sa yéenekaay gi di critique ñëw na ci deuil national bi ak ni nga xam ne moom la ñu ko doon màggale ci réseaux sociaux yi yéenekaay gi nee na Macky Sall ak Moustapha ci mbir mi kenn ki moom dafa mel dafa tëx ki si des mel ni ku muuma yéen kaay gi di enquête ñu fekk fa Ismaïla Sène di ab sociologue nee na nag état bu noppi gi nga xam ne noppi na ko ci lu jëm ci wàllum deuil national bi la ko waral lu gàtt la état bi xam na ne mooy responsable ci mbir mi yéen kaay gi la sa nee na Macky Sall ak tontu yi nga xam ne tontu na ko Emmanuel Macron loole nag Iran Ndaw moom daan na koy rafetlu bu baax a baax waaye Imam Makhtar Kanté nee na li Macky Sall wax yëyu ko benn yoon yéen kaay gi di Les Échos ñu fekk fa Bokor Jongu APR Parcelles moom nag nee na Amadou Ba mi nga xam ne génn nañ ko ko ci gouvernement bi loolee lu am solo la te sax ñoom jàpp nañ ne Ba moo tax parti bii di APR am ay jafe-jafe sa parcelle yéen a kaay gii di Dakar Times nee na Macky Sall def na loo xam ne mibutu Abdoulaye Wade la lu Abdoulaye Wade bëggoon mooy famille libérale bi daa di daje Macky Sall ma ngi koy defal Abdoulaye Wade te léegi tey mu réussir ko léegi mu am ci ndam ndax ma ngi leen di dajale bu baax a baax Idrissa Seck Samuel Sarr Ousmane Ngom Souleymane Ndéné Ndiaye Modou Diagne Fada Abdoulaye Baldé Farba Senghor Omar Sarr Maître Amadou Sall ci famille libérale bi la ñu bokk te Macky Sall ma leen di wagg-waggal yéen a kaay gi de la Soleil daal nay xëy wax ci njàng meeg njàngale mi ak protocole sanitaire bi nee na jafe na lool ngir ñu daal di wàccoo ak mooma yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy séq waxtaan wu yaatu ak démb gise di aw waykata wax na fan la commencé nee na bu njëkk am mécanicien la woon jafe-jafe yi nga xamante ni mu ngi koy dund wax na ko nee na lu bari soppeeku na ci wàllu musique am wax na tamit ci coronavirus bi nee na coronavirus bi andi ko ay jafe wax na ay projet ma wax na tamit lan moo tax muy way làmb ji saa nekk ma yéen a kaay gi di Walf koo xam ne dañoo njort ne ab jihadiste la teg nañu ko loxo si Touba tudd na ay kilifa diine yu mag yéen a kaay gi di Source A nee na waa ji nga xam ne teg nañu ko loxo Touba daat nay wax ne moom bokkoon na ci groupe terroriste bu Libye wax na tamit ne jàngal nañu ko ay technique de guerre wax na tamit ne xam na ay armée terroriste yu baree bari bu si mel ni état islamique ak waa Al-Qaïda jamono ji jëlee nañu ko Touba andi nañu ko Dakar yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy yóbbu ñu diwaanu Amérique nee na Donald Trump ginnaaw bi ñu ko gañee ba léegi Kandaare lànk defet boobu ki nga xam ne moo ko gagné di Joe Biden moom jamono ji nag daal nay tabbu ab chef de cabinet ba pare lu jëm ci wàllum processus de transition bi moom ma nga sax yéen gi nee na le 20 janvier lay jël mission yéen a kaay gi di sunu làmb daal nay wax ci fukki combat yi nga xam ne choc la ci année bi waaye nag fan la ñu koy bëree ak date yi loolee lu jaaxal gars yi la yéen a kaay gi di Stades nee na Sénégal ak Guinée Bissau suba la ñuy football Sénégal bu gagné qualifié mu nekk fukk ak juróom-benneel yoon boo xam ne Sénégal dem na ko Coupe d'Afrique Conseil sénégalais